préfet bu Mbàkke jugoon tey aljuma dëppook le 8 juillet 2022 doon amal benn visite ci forage yi nga xam ni nguuru Sénégal def na ko ci dëkk bu sell bi di Touba ngir jële fi jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci nappe do bi nga xam ne moo nekk ci li war jumaay Touba ji moom Amedoune Diop ñëwaat na ci li mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moo sabab boobu la visite. tey dañu ñëwoon euh, pour xool euh, liggéey bi fu mu toll par rapport ak euh, forage yi nga xam ne moom nañu defar. ndaxte euh, dañu amoon benn jafe-jafe muy napp bi nga xamee ne que dafa doon jog euh, autour de la mosquée de de de Touba ak yenn zone yi nga xame ne que moom moo nekk biir Touba. et euh, stratégie bi moo doon def ay forage ya nga xam ne day pomper ndox mi et fi mu nekk nii am na six forages ya nga xamee ne que mu ngi fonctionner douze gas nañ ko mais donc mu des sept donc dix-neuf forages nañ waroon donc sept rek moo des mais six yi ñoo ngi fonctionner. forage bu nekk douze mètres par heure la waxtu wu nekk euh, man naa wax ne que euh, douze mille litres moom lay moom lay moom lay moom lay évacuer et boo xoolee mën naa wax ne que si bés bu nekk dina évacuer à peu près trois cent euh, mètres cubes donc mu nekk la nga xam ne que am na solo et boo xoolee forage premier forage bi mu ngi commencé le onze boo xoolee ak léegi nii weer la. donc pour dire que quantité bu am solo la la la bi ñu demee nag euh, si euh, ñi nga xamee ne que foofu forage yi di fonctionner foofu la nekk gis nañ ne ko vraiment commencé na am ay ay ay effet euh, nappe bi mu ngi wàcc yéen a kii wow na carrément et même population yi nga xamee ne que ñoom ñoo dëkkoon foofu noonu ont eu à le dire ne ñoom vraiment am na nette amélioration par rapport ak ni nga xamee ne que moom la nekk armeelu Touba yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ju mag ji bokk na ci bërëb yi nga xam ne napp doo bi daf leen a sonal lool Maxtaar Kan di kenn ci waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñooy saytu barab boobule mi xam leen ne forage yi ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax. alhamdulilah sant na bu baax ci liggéey bi ndax jàpp naa ku fi ñëwoon ñaari weer ginnaaw xool si biir amee ni meloon ci ndox ba commencé woon a dugg ci biir bàmmeel di commencé yàq. am juróon ak jaaxle lool ak tiitaange liggéey bi mu ñëwee gis nañ ne barab bi di fi newoon ci ay tiitaange yëpp su borom dogal na wàññeeku na bu baax maanaam sax deñ na ndax léegi biir gi yëpp di fi nekk ndox deñ na te nab ko laaloon lépp laaloon lépp ci biir jumaa ci biir barab bi yàlla dogal na tamit lépp tamit na tey mu ngi jaar war a jaar yoon kon ndax naa kon mooy li ñu doon jàmbat amoon ci njàqare amoon ci tiitaange suñu borom mi dal tawut jaare na ci barab bi ci jëwriñ ñi yiir tubaa ñun su préfet ak préfet ban taxaw ci liggéey bi nga xam ne nii loolu état diggaloon def nañ ko ni nga ko war defee suñu xol seet na ci guy sant nañ ci bu baax gërëm na leen bu baax a baax Touba mosquée ci ginnaaw kër Serigne Abdoul Khadr Mbacke foofu itam lu ëpp at a ngi nii ci ndox mi la ñu yeewoo soxna Fatou Ndiaye dëkk ci gox boobule di feeñal ak mbégteem ginnaaw liggéey bi nga xam ni forage yi ñu ngi koy def. doole sant yàlla bu baax a baax di leen sant bu baax ci seen taxawaay ndax ñun ci lal yi lañ doon añe di ci reere ci lañ daan jullee te tey ñoo ngi nii di jullee ci suñu biir néegi mën nañoo añe ci bitti même fosse bu ñu ko masaan wii daal 15 jours lay am. ñu vidé waat te lool lépp tey mi ngi wàcc ba tubaarkàlla fi mu ne gis nga ko fii rek la ndox mi de sant nañ yàlla bu baax di leen sant seen taxawaay rafet na lool yàlla leen suñ borom jàppaleel boppam sant nañ bu baax a baax a baax bu baax ci lii lañu ñu fekkoon ñuy xuus mhm. suñu gan yi ci mbedd mi lañ leen dalaloon di togg di leen yóbbul ba léegi nii suñoo teg suñu tànk te dugg ci biir ndox fi mu ne nag sant nañ yàlla bu baax. bassin de rétention bi nga xam ne moo nekkee Kër Ñang foofee le préfet jeexalee visitam muy xamle ne liggéey bi ñu fa doon amal mi ngi avancé bu baax a baax. Euh, bi ñu jogee foofu nag ñëw nañ fii station bu Kër Niang pour mën a xool euh, travaux yi nga xam ne moom nañu commencé woon euh, muy euh, mur bi dañ ko waroon a relever pour mën a yokk li nga xame ne que moom lay moom lay jël mur bi pratiquement pare na e donc loolu yëpp dañ ciy gën a am yaakaar rek par rapport ak li nga xamee ne que mooy gestion inondation bi beneen groupe bi nga xamee ne que de secours la biñ doo bi bi fi ministre ñëwee bi ñu nga xamee ne moom lañ doon wax déjà euh, installer nañ ko euh, nga xamee ne que toutes les dispositions fi mu nekk nii man naa wax ne que jël nañ ko pour mën a vraiment euh, prévenir walla sinon gérer. carrément euh, les situations d'inondation au niveau de Touba. ci fàttali nabdo bi nga xam ne dafa jege woon lool ci mbooleem quartier yi nga xam ne dañoo wër grande mosquée bu Touba indi woon njàqare ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi jamono bi seen xel dal na ci bu baax a baax ci matuwaay yi nga xam ne nguuru Sénégal jël na ko ci.